yàlla defuloo kenn luy te mbokk internet Kabir TV comme ni ñu baaxoo di koy àndandoo ak yéen gis ngeen ñu depuis sa ngoon ba léegi ñu ngi fi nga xamante ni mooy kër Imam Makhtar Cissé ak bés bi am solo bi nga xamante ni mu ngi koy def woo ci mbokki jullit yépp nag moo xam tarixa boo mën di nekk mu woo ci ci li nga xamante ni mooy bés bi muy amal tey nag mu yem ak 32e édition bi moo waral ñu daal di def li nga xamante ni mooy benn plateau espécial ndax ku wax ka imam Makhtar waxtaan wax ki nga xamante ni mooy borom kër gi di oustaz Kabir ñu koy nuyu de passage di koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xéewalam yokk kattanam ba li nga xamante ni moom la mbébét ci kër gi suñu borom defal ko ko waaye ñu ngi ak ki nga xamante ni kenn la ci ñun waaye kenn la ci kër gi doon kenn ci ki nga xamante ni mooy njabootu imam Makhtar Cissé. Euh, dama koy daal di bàyyi mu nuyoo waaye su nuyoo ba pare ñëw wax ak ñun li nga xamante ni mooy solos bés bi ndax bés bi nag doon na bés bu mag ndax euh, buñ daan wax Kazu Rajab xel yëpp dañuy dem Touba waaye xel yëpp dañuy daal di dem ci ki nga xamante ni mooy bésub Serigne fallu mbakke kon dama koy daal di jox kàddu rek mu daal di nuyoo ak mbokk internet Kabir TV Pape maa ngi lay nuyu. aouzu billahi min acheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalq sayyidul wujudi wa alami suhud sayyiduna wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an barzaqil barasiq taajul arifina wa mumidihim sayxina tijaani lasi saat tariqatahu bayna al bariyati burhanul barahin e mbokki jullit yi mbokki lislaam yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara soxna si ñu ngi lay delloo nuyu di la ziyaara bu baax a baax a baax a baax Eh, yaa ngi may eh, laaj ci lan. ci li nga xamante ni mooy solos bés bi ndax eh, buñ ne Kazu xel yëpp dañ daan dem Touba. tey ñu ñëw fi nga xamante ni mooy Cité Lamine ci kër imam Makhtar Cissé ndax mën nga ñu dikkal ci bés waaw kay waaw bu ne Kazu ñëpp da xel yi day dem Touba tey jii ñu ñëw ci kër imam Makhtar waaye xam nga li waral dem Touba. ak li war a ñëw kër imaam Makhtar Cissé li war a dem Touba mooy kazu rajab weer wi mooy rajab rajab mooy weeru yàlla di weeru jaamu yàlla di weeru njéggal di weer woo xamante ni di weeru yërmande di weer woo xamante ni yàlla daf ko ubbi pour sawe ci muy sawetaasu jaam yi léegi nag weer wi màgg gi mu màgg ci la Serigne fàllu Mbacke gane àdduna gane gi mu gane àdduna loolu la ñuy màggali ca Touba waaye boo gisee ñu ne imaam Makhtar Cissé Kazu mu di ko màggal imaam Makhtar Cissé day màggal màggaayu yàlla ci guddi gi di màggal njëggal yi yàlla def ci biir guddi gi ak taraanga yi ci yàlla def ak xéewal gi mu ci defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taraanga ji mu gën a ëpp ci dundam ci weer wi la ko am ndax bi mu nga xamante ne nii Eh, soxnaam su tedd sa Xadija génn na àdduna ñu am ñetti fan bàyyi te xam ba génn àdduna mooy Abdul Muttalib léegi nag mu ni cundum doonub jëri moom képp waa Màkka jóg gën a am puissance nag ci bu ndoxatal ko di ko teg yan ko daan teg ci ay coono ak métit ci la ne woon nag ku am kër ba ndey am nga kër baay ci la gën génn kër baayam dem seeti kër ndayam mooy taayif bi mu demee di fa wuti wàllu fekk fa ay ndijaayam ak ay mbokkam ñu embargo ko ñoom ñëpp boole ko dof yaa xeer ya ñu ne bu nu ko sànnee bu nu ko mettitalee ci digg dëkk bi mag ñi dañ ciy jàpp dañ ko bàyyi ba mu génn ñu boole ko xale yi ak dof yi xaj ñu sànni ko ay xeer keroog sànni nan ko ay xeer ba dereetam di génn Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala li muy mën a bind bind bind nga xam ne lu ne bind na ko fu ne bind na ko nee na keroog la xaw ca bis ba du ko bind ndax lan ndax ñaawteef ya fa am loola nag teraa ji nga teraanga ji nga xamante ni ci la ci la yonent bi jóg bi fa yonent bi jógee ñu gaañ ko loolu yàlla yàlla yebal jibril ne ko soo demee neel yonent bi daa wax su ko neexee ma boole ñaari xeer yi mun leen bàyyi leen ndax danoo xamul bu nu xamoon dun ma def lii bu nu xamoon ne man maay muhammadu rasulullah duñu ko def yàlla ne ko nag comme waa waa waa màkka toroxal nan la waa Màkka tedd dil nan la man dinaa la éviter nga ñëw su ma la éviter dinaa la teral yaakaar naa teralu yàlla moo gën tedd dilu waa Màkka ci la ko waxee Jibril mu jël alburaax da ko fekkal yonent bi fa mu nekk ca néegam jël ko indil ma ko mu gane si ma lii daal mooy solo bis bi teral teral gi yàlla teral yonent bi nag ak jaamu yàlla yi mu def ci guddi gi ak njéggal yi mu def ci guddi ak yërmande yi guddi yooyu fan yooyu moom la imam Maxtaar Cissé di màggal fii ci Salamé ok su fekkee am nga leneen loo may laaj. que ñu gis taxawaayu bés bi ak alxuraan ji ñu bëgg nga dikkal ñu ci rawatina kër Seydi Hadji euh, Malick gi nga xamante ni euh, ci la nekk digganteem ak sëriñ Abdou Aziz Al waaw xam nga imaam doxinu kër Seydi Hadji Malick lay doxe la fa nekk. boo demee la ngay sentir la ngay yëg Tiwaawan boo ñëwee fii moom ngay yëg di fa yëg yàlla yi kese dinga nga fa yëg alxuraan kese di fa yëg wasafu yuy jolli subaa ngoon di nga fa yëg xadaratul jumaa yuy jolli jolli di gëndaloo loola moo fa am boo moo tax bis bi imaam daf ko daf koo monc ay askar sikar dañuy sikar dañuy jàng alxuraan wàcce kaamir alxuraan kilifa yi nga xam te ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp dinañu ñëw borom xam-xam yëpp dinañu ñëw imaam yi dinañu ñëw ustaas yi ñëpp dinañu ñëw ñu ànd tiim téere bi yàlla bi alxuraan jàng ko suñu paree jàng xatma bi bu nu jàngee xatma bi ba pare julli jumaa bu nu jullee jumaa ba pare nag ngoon gi ci la ñuy def xadaratul jumaa ku ne xam na ne ab tijaan xadaratul jumaa farata la ci moom boo ko defee ñëwoo woo Thiès gépp woo senegal gépp woo àdduna bépp ñu ñëw ñu def suñu xadaratul jumaa ci la ñuy delluwaat ci kër yi bu nu paree nag ci la nuy dellu si waat nag dundal guddi gi ndax lañ koy dundale dundalu ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundal ko ci waxtaane jaar-jaar yonent bi fi mu jaar ba ni mu ju ni mu déparé Màkka ni mu de àggee baytul maqadis ni mu demee ba Sidratul Muntaha ni mu dem ba jàkkaarloo yàlla loolu lépp dinañ ko waxtaane ci guddi gi guddi gi daal imaam yàlla yi kese la ko la ko la ko sosee digganteem nag imaam waa Tiwaawan yëpp la am sëñ Moustapha Jamil mooy sëriñam waaye boo ko xamul piir doo xam kuy sëriñam ci Tiwaawan ndax bëgg ñëpp ormaan ñëpp ànd ak ñëpp jaxasoo ñëpp moom noonu la mel kooku daal mooy imaam Makhtar Cissé Euh, kon euh, suñu pap ñu ngi lay jaajëfal dañ lay bàyyi rek ak suñu mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ñu doon bàyyi uh-huh. nga tàggu leen ndax dañ ñi lu duf ci nag bi xaaju ci cin bi xam naa dinañ leen toppal lépp lu ngeen xamante ni rek mu ngi fii ci kër Imam Makhtar Cissé waaw kay baax na soxna si jërëjëf ñoo ngi lay eh, ñaanal yàlla eh, di ñaanal télé bi tamit yàlla na yàlla gën koo yokk eh, yeneen télé yi ñuy dégg di leen gis bis bu nekk ñuy jàkkaarloo ak ñoom yàlla na ci bii bokk ndax lu tax ki ko moom mu Mouhamadul Kabir seen bokk ci ñun fii la yaroo fii la jànge fii la màgge fii la defee léppam moom lépp Kabir seen fii la ko defee góor gi mooy góoram mooy baayam mooy sëriñam kon su demee ba am yàlla may ko teraanga ju mel nii euh, ñun dinañ ci dinañ dinañ ci kontaan dinañ ci bég bu nu sañee bu nu dinañ ñaan yàlla mu yokk. waaye daal ñu ngi lay sant yow it di sant Aji Mansour mi nga àndal di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax li nu mën a wax ci bis bi bari na li nu mën a wax ci Imam Makhtar Cissé bari na li nu mën a wax ci guddi gi bari na waaye comme temps bi moo ko mayul jamono xat rek dañ koy yemale foofu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yàlla defuloo kenn luy